avec plus de cinquante pour cent boo xamante ni euh, plébiscite la sénégalais yëpp wax dëgg yàlla euh, rafetlu ko mais itamit ay élection yoo xamante ni yu yu jaar yoon la macha allah ci organisation ci li nga xamante ni mooy euh, température sociale bi lépp jaar yoon ba tax na tey jii ni ñu tabb ko fii muy euh, port autonome de Dakar mu war a jiite lépp loo xamante ni activité portuaire la en tant que directeur général donc moom nag euh, la ñu nekk di xaar fii ci saalu direction général port autonome de Dakar ñu ngi koy xaar moom accompagné du directeur sortant à savoir Mountaga Sy mu daal di ñëw devant ses euh, désormais proches collaborateurs waxtaan waxtaan ak ñoom wax leen la nga xamante ni amaana moom mooy ay yéeneem wax leen la nga xamante ni amaana mooy doxalinu liggéey bi su ko defee ñu mën a ànd main dans la main liggéey parce que wax na ko nee na moom li nga xam ne mooy priorité am mooy projet bi nga xamante ni moom la sénégalais gëm fal ko teg ko fi nga xamante ni mooy bopp Sénégal projet boobu noonu mu fësal ko par des actions concrètes projet boobu noonu mu réaliser ko ba nga xamante ni tey jii ni képp kuy sénégalais di nga kontaan ci nomination fii ci port autonome de Dakar loolu mooy réaction bi nga xamante ni kii di Waly Diouf Bodiang amoon na ko euh, bi laata bi ñu ko falee en tant que nouveau directeur général di port autonome de Dakar ñuy xaari tamit tey ban discours lay wax devant ñi nga xamante ni ñoom la war a sekkal euh, bokk liggéey pour mën a jëmmal loolu di yéeneem ci euh, port autonome de Dakar ñiy toog di ko déglu itamit ci li nga xamante ni mooy doon priorité am ak surtout lan lay wax tous les sénégalais yi nga xamante ni dañu toog di ko xaar pour mën a gis seen bopp ci li nga xamante ni mooy port autonome de Dakar rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan sans limite TV. comme ni ma leen ko waxee rek euh, depuis euh, une heure trente minutes ñu ngi euh, taxaw di xaar le nouveau directeur général mu daal mu daal di ñëw fii nga xamante ni mooy ci salle bi. pour mën a def euh, lii di passation de service euh, officielle devant tous les euh, ses proches collaborateurs fii ci port autonome de dakaar donc ñëpp ngi toog di ko xaar pour mu daal di def lii di discours d'intronisation en tant que le tout nouveau directeur général di port autonome de Dakar actuellement nag ñu fàttali leen ne rek gis nañu fi ay invité yu mag ñi gën ci ràññee kii di euh, Djiby euh, le direct euh, le chef de protocole du premier ministre Ousmane Sonko moom moo sëgg noonu ci table bi ci ginnaaw nag naam du ngeen ko mën a gis mais Dame ay Mbodj mu ngi foofu noonu toog moom i tamit fii la ñu ko fekk. mu daal di teewee pour mën a taaral jëmmal bës bi nga xamante ni Waly Diouf Bodian il va prendre officiellement fonction à la direction générale du port autonome de Dakar waaw comme ni ngeen ko gisee euh, kooku noonu habillé en marron mooy euh, Azoura Fall moom i tamit euh, mu bokkoon ci prisonnier politique yi nga xamante ni tey jàppoon nanu leen ba muy génn itamit mu génn avec des séquelles mais tey ñu gis ne mu ngi fii teew ànd ak ki nga xamante ni mooy chef de protocole bu Ousmane Sonko. Euh, ñu daal di ñëw jëmmal li nga xamante ni mooy euh, prise de service euh, officielle bu Waly Diouf donc ñoom i tamit ñëw ànd ak moom yéeg ak moom pour mën ko jàppale ci liggéey ba nga xamante ni am na solo lool te ñu dénk ko ko en tant que nouveau directeur général du port autonome de Dakar. alors kon ñu wëy di xaar rek euh, ki nga xamante ni mooy euh, directeur général bu port autonome de Dakar bu bees fii nga xamante ni mooy grande salle bu direction bi ñu ngi fi euh, taxaw di ko xaar mu dal di ñëw def discours d'intronisation devant ses désormais proches collaborateurs wax ak ñoom ci li nga xamante ni wax ak ñoom ci li nga xamante ni mooy ay yitteem wax ak ñoom ci li nga xamante ni mooy ay objectif am ci euh, por autonome de dakaar naam sax euh, defoon na réaction euh, dernièrement bi ñu ko ta bi ñu ko falee ba pare mu ni que li nga xamante ni moo ko yitteel fii ci port autonome alors kon ñu woy di xaar rek euh, ki nga xamante ni mooy euh, directeur général bu port autonome de Dakar bu bees fii nga xamante ni mooy grande salle bu direction bi ñu ngi fi euh, taxaw di ko xaar mu dal di ñëw Waly Diouf Bodiang tey la war a def prise de service officielle fii nii devant ñi nga xamante ni ñooy administration portuaire donc nag euh, ñu toog euh, wëy di ko xaar di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen euh, ànd ak ñun comme ni nu ko waxee rek actuellement kii di Waly Diouf Bodian ak Mountaga Sy ñu ngi ci biir bureau bi naam xaw na noo yàgg nag mais teewul ñu ngi leen di xaar yàgg bi lim li muy li muy firndeel rek mooy volonté wu éplucher dossier yi ëpp solo. fii nga xamante ni mooy port autonome de Dakar mais aussi dafay wone encore une fois que ni que port autonome de Dakar du lu ndaw mais doon na loo xamante ni tey jii nii ab institution bu mag a mag la fii ci Sénégal ndax euh, wax naa ko sànq nee naa leen port autonome de Dakar euh, poumon économique la. pas seulement pour le Sénégal mais plutôt pour l'Afrique de l'Ouest parce que position bi mu am capacité yi mu am relation yi mu am néew na ay pays yoo xamante ni fii ci Afrique sowu jant am nañu ko ba tax na la plupart d'entre eux lépp loo xamante ni dañu ko war a recevoir par voie maritime fii la ñuy arrêté bateau yi déchargé ko fii ci Sénégal après ñu daal di ko teg ci camions yi wa ilaa ñu teg ko ci avions yi mën ko yóbbu ci yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoo frontalier ak Sénégal lu ci mel ni Guinée Mali Mauritanie ainsi de suite pour na citer que cela Euh, port bu ama am solo mais aussi bu am envergure ba tax na tey ji nii euh, la mu mën a indil Sénégal bëri na Euh, li ci nekk itamit di ay ressources yoo xamante ni mën na jàppale Sénégal économiquement bëri na ba tax na tey ci nii euh, du doon loo xamante ni dañu koy sànni rek nit for ko mais faaw ñu teg ko ci yoon jël dossier par dossier étudier ko pour mën a ñëw fii jël prise de service bi mën a nag wëyal liggéey bi nga xamante ni tey jii nii mooy xaar euh, kii di Waly Diouf Bodiang te ñu xam ne itamit du doon lu yomb mais aussi dara xëyul rek sotti. parce que yàggul dara ñu ngi gis ay revendication yu bëree bëri fii ci port otonom de Dakar muy les dockers ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni am nañu seen i soxla wax à travers les médias te euh, on espère bien que kii di euh, Waly Diouf Bodian bu ñëwee la muy njëkk a def mooy comme ni te waxal na ko boppam nee na la muy njëkk a def mooy fexe ba xam lépp lu fiy xew lépp